kaaw tiif di xibaar boo xam ne daanaka mi ngi wadd nag te soxal képp koo xam ne nag ab africain nga ah, di ki nga xam ne mooy nigérien bi nga xam ne daanaka moom it ah, ak soxnaan ak tout tànkam ah, génn na àdduna ci crash hélicoptère boo xam ne maanaam hélicoptère bu daanu la ñu bari nag am na lu ñuy ñaaw ñu ci moom mi la mbir ndax Hubert Wikwe di PDC bi nga xam ne nag bokk na ci ñi nga xam ne ñu ëpp xaalis fële ca Nigéria boo ci génnee Aliko Dank Dank nga xam ne moom moomee wala Aliko euh, Dangote maanaam mi nga xam ne moo yor société ciment bi moom nag euh, PDC la boo xam ni moom moom banque bi ñu naan euh, ku Access banque Access banque nag képp ku nekk Sénégal di nga ko xam ndax bari na ay agence mu am fii ci Sénégal moom moom mooy PDC bi te moo ko moom. hélicoptère la yoroon nag dem di seetaan match Red Bull xam nga match yooyu daanaka ñi ne États-Unis match yooyu dañ ko bëgg sax moo leen gënal football te moo fa gën a dox ci États-Unis loolee nag la doon seetaan ak njabootam toll woon nañ ci ñoom ñi ne woon ci li nga xam ne mooy hélicoptère bi juróomi nit ñoom ñëpp nag daanaka dañoo génn àdduna ndax hélico bi ni ngeen ko gisee nii ci photo yi ngeen jàkkaarloog moom ah, bi mu daanoo ba des ab lëf balaa kenn ñëw daanaka hélicoptère bi moom dafa tàkk ndax tàkk googe nag day tax daanaka bu ñëwee dañuy fekk nag euh, ñëpp ñàkk seen bakkan ñu bari nag jàpp nañ ni am na lu la xas ci biir ndax discours yi nga xam ne daana ko mujj jël nekk discours yu am solo yoo xam ne nag euh, pour Afrique ak ñi nga xam ne ñooy afrique yi mën na nag am taxawaay bun taxawaay ci adduna wala ngal kàpp ak yeneen ak yeneen waaye loolu lépp nag xam naa ab enquête koy leeral ma nga noonee ngeen gis ko mu ànd ak ki nga xam ne nag mooy soxnaam ak euh, benn euh, doomam nga xam ne daanaka ñoo ne woon ci lii di hélicoptère bi ak ñi nga xam ne ñoo doon dawal ak yooyu daal ci gàttal juróomi nit lañ ca nekkoon Euh, loolu lépp nekk loo xam ne nag lu mitee miti la enquête ya dana wéy di am euh, pour loole ñu mën koo leeral waaye leer ba leer moom ñàkk kenn bakkanam fële ca Californie ci frontière ba euh, doon génn hélicoptère bi gis ngeen ko andil nañ leen ko mu nekk xibaar boo xam ne bu tiis la ci képp koo xam ne africain nga